la la ku la sopp jannatu laay fal ku la noonu dem niiraani la ba war falo ku la sopp jannatu laay fal ku la baay maam Lamp Fall yaa nu ginde la la la borom Bawar la ilaha illallah maam Lamp la la la Fall borom Bawar Fall la ilaha illallah maam Cheikh nu ginde la la la njaay borom ba war faal yaa nu ginde ay lolo faal faal la ilaha illa la la ilaha illa la ilaha la ilaha illa la faal tey ku la sopp jannatu laay faal ku la noonu dem niiraani Mam Serafala Ba Cheikh Baramba baatub laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal borom ilaaha illallah yal na ñaan yépp nangoo ye fal lay la la fal Seex Borom fal no ngi fal dellu ye fal fal fal fal yërmande doole biir fal ak fal Seex la la fal Cheikh borom fal la fal kero la fal fal fal fal fal jaam ñépp texe fal lay la la fal la barka xaadim rasuul lay daraja yi maam la la fal la barka xaadim rasuul lay daraja yi maam lamp fay lay la la ci ndigalu serigne bi ak wa Touba yembal yeb mu mel ne tuddé wa Touba yembal tuddu nañ Cheikh abou Madiana Mbacke bu tuddé Cheikh abou Madiana Mbacke tuddu nañ Cheikh aziz Mbacke mi nga xamné ne moo fi toog toogaayam mu mel ne nañ and ak Serigne Demba sek fi ci Touba Bandeng diko fasiyene sante le sunu borom diko sante le Serigne bi kon ñi ngi ñaan ci daraaje Cheikh Ibrahima Fall sun borom yagal ko te wéeral ko ba lim yene ci bis bi yene ko ci liggey Serigne Cheikh Fall Mbawar bi dem ba ñing lay ñaanal sun borom defal la fan wu gudd ak wér ba jekku boko ko jekku bu déwénee nga gën koo jekku ci darajey sa sang bu tedd bi nga xamne moy Cheikh ibrahim Fall kon Serigne Gora mbay dañuy sàkk nga ñew ni ci basan gi bu ko defé ñu jox la kay gi nga feñal sa yene mu melne ne soxna Penda momit mi ngi ci biir. barke mam Cheikh ibrahim Fall. serigne Mountakha bashir yalla na fi yag lol te wér. sëriñ Amdi mom serigne Cheikh Modou Mbenda Fall yalla na fi yag lol te wér. noonu lañ koy ñaanale it mbollem khalifa généraux yi nek ci rew mi ak bitim rew di liggéey l'islam ñu ñaan suñu borom lepp luñu sumbal l'islam ji yalla nañ ci am ndam lu kawé sen njort ci barke maam Cheikh ibrahim Fall. ñu ngi nuyu mbooleem waa dëkk bi te di leen siyaara di leen ñaanal suñu boroom defal leen tawféex waaye di jaarale nuyoo bi ci suñu bunt ci dëkk bi muy Serigne Demba Seck moom mi nga xam ne suñu wëllëre la ñu dëkkandoog moom ci Touba Yëmbal dëkkin bu rafet muy nit ku am kóllëre di jëmm ju baax di ku yaatu ku bëgg doomu aadama ku xam teraanga ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te dolli kàttanam ba yéeneem yépp bu ko munta jëf suñu borom def ko ci njabootam ñu jëf ko te mu fekke ko ànd ko bokkam yépp ci barki xasaay bi bis bii nag yàgg nañoo am yéeney teew ci waaye tey la ko suñu borom dogal mu mel ne at mu ne dañ ciy soññ waaye day tombeek ñu am ay programme yoo xam ne duñ ca mën a ñàkk teew suñ ko dogalee ngant rek mu nangul nu ko ndax moom suñu diggante jenn jëmm lañ duñu ñaar ndax suñu wayjur wu jigéen wi fi nekk xam na ci dara soxnaam soxna daba it xam na ci dara bari na fi ñoo xam ne xam nañu suñu diggante ñun ak moom waaye ñu leen di wax ne ku bëgg dëkk bii la sëñ Demba lépp lu mu dugg dana ci dugalaale dëkk bi te yéeneem ak bëgg-bëggam génnul dëkk bi ak waa dëkk bi fa mu nekk ci dogalub suñu borom la fa nekkee waaye léppam fii la ndax képp ku mu xam nga am njariñ wala mu xam ne nit ku baax nga indi na la fi jéem na laa xamale ak waa dëkk bi te lolou munta wessu bëgg fi nga fi nga cosaanoo te nak xubbul watani al iman bëgg seri réew dafa bok ci gëm yalla te taxway bobu ci lolou la nek bëgg sëriñam it gëm ko gëm go xamanteni ni ñun xam nañ fi mu ko tek ñu koy ñaanal baax suñu borom doli ko tawfiq xam naa ne wax ji sax mën na baña gëna gudd ndax sunu jëriñ ji ñu andal muy sëñ góor mbay xasaayit mu baax mi nga xamne jankat bu mag la wax deug yalla te bis bi biñ ko ko waxe dafa dag yitem yeb dal ne dina ci tew te loolu dara warale ko lulul dul gi dox suñu digeenté ak Demba mu jaayante loolu lepp tew fi ngir jëmmi sëriñ bi ñukay ñaanal suñu borom defal ko tawfiq bu baaxa baaxa baax kon ñi ngi leen di nuyu di leen te di leen ñaanal di sakku ci yeen di sante ñepp tay gëreem ñepp di gatal kaddu yi fofu rek. ndax lu ñëpp bokk moom lu la ci jox mu doy abada fi sarisha wa kulla man lam yahmuda waji man qad amanu wa aslamu wa sanu mudila man lam yuslimu كامل أمة النبي شاء الله عليه بتسليم رب جل ليستجيبوا للذي يؤمنون أبيدا الأمة خير مرسلين مرسلين مرسلين عن الذين كفروا برشيد قل لهم نتنسي ساجلا وبشرا عاجلا حبك يا من مشير أعني ذوي إسلام عن عقوني إلى يداك وعن شؤوني صلي وسلم يا مبيد من جحد للمنتهى ولا لوساب الكرام أوصي سلاميك وجد لي بالمرام يا من لا الخلق كما له الأمور وأنت الراضية ولي خديت دون الشك الناجية أزل أمة النبي أحمد من همدا نذرا عزيزا يسمن الكبار مع الشغال لهم مرام جن العديس والفوق الكتاب عن الذين امتنوا من المطاب رافعوا بالفعل الكتاب والفوق مع العادي سيزابرون الشلبي ولتكون صولة سلبي لأوشر الذي أريد وانفي بي الورايا مخنيا مدفي محوط خزد الرليم منتخب وخذت لي ما وطوا شاوتها أوتها أوتها وجعت لي ما لا يشار عجبا في عبد بشاره لم جبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء تليد المخفى خلاني فغربي فغربي فغربي لما يسام دواما ساكرم ساكرم ساكرم يا لاو يا رحمن يا بشير بشير بشير خادر يا رحيم يا نسير نجيت من بيطاع دخل مها من الشياطين فشكريا ما وجات دميا إلى الرحمن المالك الرحيم شل الاسماء كرمني في مودي وبلدي مكرم بلا شفا خلدي أكرمني رحمان إكراما كفى كليتي ترى وفيدي وكوى ناجت ربي شهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيدا فيدا فيدا أميتو من يزور سرمدا لخيرنا سوف نحمدها خلاب جملة الهداة وجار وجار وجار لخير الدر والمنى يجادل يجادل يجادل خلاب جملة لشنافنا ليتوجه النور في مزن مزن مزن إلى لسان نهت مدر كذاك النقوم أن اندفت مدرتي والبلوى بفن مؤمن وخاد الغلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكر كلي كتاب بلا معاداة ولا عتاب ناجيت تناجي التكريم ولم يزل بالنار الكريم إليه وجهت خطابا إليك نذير مع تعبي إنك البزيم فما دخت أوصلت لي في رمضان ما رد منك قبل بفيضان بدأت لي في الذي عبدت لي وجالب النسى أجتني جواب من عن سنة في على بوجهك الكريم أصف رجاء للمؤمنين وتهاتك الرجاء مسليا مسلما على نبي بشير كل اخرب وأجنبي يا من ماني نشا وترى موت لا يا من رمين بلا يا من جميع خدمي تقبل نجي يا للمستوى بدر سلام مع السلام من دار هم الخلاء يسر لهم في الذي تعشر فكل ما يسرته تيسر ناجاك عبدك الخديم وعبدك مرتجيا نيلا منا من عندك للمصطفى عيدك ملأت ربي مالكي كل يدي عدلا كحملي ونيتي أدبت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلتشوني برعني الله من شرك ومن كل نفاخ جديدا برعني من عيب نشيب نبي بنبي عليه بسلام من هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء ندى ونورا محمد صلى عليه بسلام بسلام بسلام وسيلتي له ولحال الكرام فرعني الأكرم طفيحا يدو بأنني كل محب وقديم لو ختابي وما نقدر ولي شوانا وجل الخطارة عيطنا على الهدى فقلبوا فقلبوا فقلبوا ولي شوانا شاخين الخلب تسليم باخ غاد لي شوابا على الذي أورشني شوابا على الذي طلب كوني الخديم لو شلا ماشي البرية الخديم لمن لو كلية بعد حمدي ومن خالفني نباد ملك الذي ليس المباي مباي لخاد ما خاب عن المباي وجعل الواس فراني جميل يمنا أغلاني الملك وورافع شاخ مكاره لمن قبلنا مدرتي من يقود منا ملك والمالك الذي تملك أجرا كبيرا وشابا وجزا والوعد لي في رمضان مجزا أجر الذي ما عنده جمع خل مدرس jiital ci lislaam till lá. ko def Sëñ Tuubaa man Seera Faal amal bag Serigne Ndiaye biram jabi jangaay bay naaru degen Cheikh Ibra Faal la ilaha illallah sawru maam Serigne Ndiaye da bay maam Serigne Ndiaye taxoro ma ban gi wekk wala gi ñëpp gi daj dëpp gi waaw góor waaw waaw foofu baax na de ñàkk de fala ilaha illallah yalla yalla kay moo tax jàmm am de waaw waaw fala ilaha maami sëñ Seex Mboro Faal la ilaha illallah yàgg fee faale yàgg fee faal sëriñ Seex Mboro Faal yàgg fee yàgg fee faal yàgg fee faale sëriñ Seex Mboro Faal yàgg fee jërë ngeen jëfati amiin bak Sëñ Tuubaa amiin bak Sëñ Tuubaa amiin amiin bak Sëñ Tuubaa ñu bokk ñëpp amiin bak Sëñ Xaadim ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan bak Seexul Xaadim Seex Muntaxa yàgg fi lool te wér ànd ak suñu am ñu mel na ak suñu sang bu baax bi seen Seex Mboor Fall sëñ Yoro Fall sama sang bu tedd ba yàlla fi yàgg loolu te wér. ci bis bi lool. ñu ñaan ci barke Seexul Xadim fekk jiwén yi bu ñu ñuy sant bu baax sëñ Demba Seck Seck mi nga xam ni day sunu mag xol bay sedd ndeysaan bàyyam sëñ sëñ sëñ Gédé Seck moom la sëñ Cheikh Mbawar di gane si waaye Demba topp ci taawam daa baax day sunu mag lu baax ndeysaan ñu bokk nekk fekk Ndakaaru muy ànd ak sunu mag ju baax ji sëriñ sëriñ xaar xaar mu pare. ànd ak sunu. numéro sunu sunu mag yu baax ci sëñ Samba numéro bi. waaw waaw. ñu koy ñaanal ci bàkk Seexu Xadim suñ borom defal leen tawféex. daa daanu waaye dëgg la. baax ñoo ñu yàgg a ànd bu yàgg ko bis bii nag mu bëgg ci yàgg bëgg a teew te suñ sàdd mii day suñu kilifa ni ma suñ jàmba moom ma bëgg a demee dee daa foor ci man te bëgguma faa demee nii moom nga xam ni moom mii suñ sàdd mii lépp lu nekk ci ñun baax ji suñ bàyyi daan moo ko def ci ñun mu dem Touba bokk ak mu nekk ak ñun ma ne ko man sàdda man loo bëgg ci man maa ngi nii te yàlla xam dama xat lool waaye nag man dama ne ko man soo ma soo ma bëggee ku bëgg ñàkk na bak Seexul Xadiim ma ne ko foo nekk naa la fekk mu ne ma suñ jàmm sekk bisam bi muy def ñu bisu bàyyam bi ñuy màggal ma waaw maamam maa bëggoon nga dimbali ma ci teewal ma ci ndax bëggum faa demee nii yàlla xam moo war a suñu teewaay ñu ñaan ànd bi yàlla na ko suñu bi ñu yàgg koo def yàgg koo def ñëpp fekke ziar bi suñu bàyyi ak suñu soxna baax suñu bàyyi jànkat yi di leen ñaanal suñu borom dafa leen tawfeex suñu nga xam ni ñoom ñoo xàll yoon ba yoon bi ñoo xàll yoon ba mu nooyu népp népp népp dama bëgg li may def nii nag dama ko yàgg def fa mu fekk sama kilifa jàngkat laajal ko addiya maa bëgg képp ku fi ne te yaakaar sëñ Tuubaa maa bëgg nga fekk ma fii jox ma addi sëñ Tuubaa ñu jox ko bàyyi Moustapha Seck nii up that